mouvement ci laa bokk nekk en coalition ak alliance bu président Abdoul mbay bokk ci coalition Abdoul 2024 ñi ñëw tey pour investir sunu candidat sunu candidat Abdoul mbay ngir bëgg Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg Sénégal bi nga xam ne moom la ñu yeyoo mais Sénégal bi nga xam ne jamono bi ñu toll dafa am lu mu soxla mu soxla waa ji wax na ko léegi ci waxam soxla wun en réalité un président seulement mais dafa am ku ñu soxla ku ñu soxla mooy un dirigeant koo xam ne ni mën na yor réew mi yorin bi nga xam ne day méngoog waa réew mi ak li réew mi bëgg donc loolu moo nekkoon tey sunu sunu sunu sunu sababu ñëw fii ci fii ci congrès bu président Abdoul Mbaye en coalition des mouvements ci laa bokk. waa boo gisee mouvement ci laa bokk li sababam mooy da gis ne engagement la engagement boo xam ne nit kuy laaj droit am la mooy di laaj lu mu moom moo tax mu ñëw ne ci laa bokk. ci laa bokk ci réew mi ci la ñu bokk aussi ci xalaat bi nga xam ne moo war a doxal réew mi ci la ñuy bokk ci lépp loo xam ne réew mi daf ko soxla réew mi en réalité dafa nekk en crise crise boo xam ne dañu gis ne pour ñu mën cee génn ci crise boobu muy ndaw ñi nga xam ne ñi ngi dem di dugg ci gaal yi ñii di ko tuddee beaux affaires ñi ko ñii di ko tuddee mbëkk mi ñii di ko tuddee euh, ñii di ko tuddee Barça ou Barzak boo demee ci mag ñi aussi la même chose moo xew nga gis ndaw ñi nga xam ne jàng nañu ba pare mais dañu am jafe-jafe liggéey en même temps nga gis ñi nga xam ne dañu génnee ci daara ji moo tax ñi bokk ci li ñu charte ñi nga xam ne wax nañu ko nga xam ne mooy sunu engagement ci mouvement bi mooy inclusion de doomu daara et surtout loolu daf ñi intéressé parce que pourquoi ñun ñi dañu nekk piir produit daara sentir ne daara ji dafa am dañ ko desal ginnaaw ci li nga xam ne nii mooy yëngatu ci wàllu politique ci li nga xam ne mooy instance de décision yi nga xam ne mooy doxal réew mi te en réalité su fekkee waa daara ji nekkuñu foofu su boobaa li nga xam ne moom la ñu bëgg a joyanti moom la ñu bëgg a defar ci réew mi bëgg mu jubbante ko loolu dina jafe moo tax mouvement bi daal di def engagement politique ñëw ne ci laa bokk pour que wane ne doomu daara yi ci la ñu bokk pour que wane ne sénégale yëpp ci la ñu bokk amul kenn ku war a wax ne du ma def politique parce que en réalité bu ñu deful politique li ñuy nekk mooy dañuy commentaire ci politique kon nag commentaire ci politique dox na wala doxul engagé en politique fexe ba bokk ci ñi koy doxal loolu la ñu jàpp ne mooy li gën moo tax ñu engagé wu ne ñun tamit ci la ñu bokk mooy indi mouvement ci la bokk. exactement parce que sëriñu daara en réalité mooy kii war a def politique parce que suñu bàyyi Maodo Touré dafa wax ne l'islam est lié à l'engagement politique su fekkee sëriñu daara yi defuñu politique bokkuñu ci ñi jàpp gestion de la war nañ ci bokk. kon ñoon ci lan nañu bokk parce que sëriñu daara bi jàngalekat la kon jàngalekat war na jàngale naka la ñuy doxalee am réew sëriñu daara bi dafa nekk koo xam ne dafay orienté war na orienté aussi ñi nga xam ne mooy waar ñu yor réew mi ak ñi nga xam ne mooy population bi naka la ñu war a yoree am réew kon sëriñu daara bi dafa bokk ci ñi nga xam ne dafa war a participer ci développement wu réew bi ci côté yëpp nag. Ousmane Thiam dëkk Jaara Jolof dëkk Ngeet ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm suñu soppee suñu xarit suñu lépp suñu sëriñ Cheikh Alaay Ousmane Niang nga xam lu ñu commencé rek si moom la ñu commencé ñu jógee délégation bu am solo jógee Daara Jolof ci laa bokk ànd ak ñii nga xam ni ñoom Coya Ba ñoom Khalil 04 ñoom Gallo ñoom ñëpp ñu def bu am solo comme ni ko Habib waxee mbir dafay toll ci àdduna foo xam ni soo ci bokkoo coow war caa def waroo xaar ku la woo lu tax waroo xaar ku la woo mooy ab dëkk doo xaar ku la ko defaral da ko koo war a defaral sa bopp loolu nag mooy njëkk commencement mooy daara yi ñun dañoo moom réew mi bokk ci démb tey soog a ñëw te ñoo xam li ci ne ki xam li ci ne dafa war a ñëw pour li jëndi ko pour defar ko kon loolu war naa tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw waaye nag ñoo xam ni jolof jolof ñii far réew da caa bokk ndax ñun ñëpp xam nañu ñun duñ dar nit dañ koy darle daruñ la ngir déedéet dañ lay darle indi la lépp lu la wër ngir lan ëllëg nga doon lu ci dëkk Ah, responsable yooyu si la ñu nekk te si la ñuy dund kon ñi ngi ci waajaay woo xam ne bis bu ñu jógee ngeen xalam jolof jóg na waaye bi ñu jógee topp nañ si ginnaaw kan Habib Niang di soppe nag di ko mën social di koo xam ne nii li ko ñor mooy réew mi waaye jolof da koo ñor nag. solo macha allah jàngee nañ si dignité jàngee nañ si xam jàngee nañ si nit war naa xam moom mooy kan waaye jàngee nañ si àdduna ñëpp war waruñ koo mën a ku ne di solo xooy ngir defar ko nan lañ koy defaree mooy damay jàpp nga jàpp kii jàpp ñu dajale lem ngir réew mi avancé. loolu lépp sant nañ ko si jaamu nañ ko si tey di la xamal ni commencé ñu dañoo ñëw ni pour xuq ndax bu ñu nekkee huit te ku ne ngay responsabilité dëkk koñ ba nga ne waaye am na lu ñu wane dañoo bëggoon a feesal saal bi mais abi moo ne loolu yem laa bëgg moo tax ñu yemale ko. leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte ak contentement ñëw te ndak waa mouvement ci laa bokk représenter les femmes du département de Linguère plus particulièrement Daara Jolof tey xanaa dañ ko gën a fësal rek mais politique day lépp te dafa yàgg euh, nekk loo xam ne dañu naan guleet te politique moderne daa am ak façon bu nekk ak façon bu nekk alhamdulilah nag bi ñu amee pour ànd ak président Habib mu bokk mu mu créé mouvement si la bokk ñëw ànd ak président Abdou Mbaye hmm, ci defar réew mi ak leneen ak leneen politique autrement ndax buñ ko doon seet ci taxawaayam wala buñ ko doon seet ci wàllu daara yeeg genre kon duñu politique mais dafa xew te politique mooy dox réew ndaxte tey boo toogee defoo politique kon du dox te daara nag moom nekk na dëkk boo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin lépp a ngi fa diineeng fa lislaam a ngi fa politique am na fa ànd ak dëgg ak tarkaala mboolook lépp kon alhamdulilah ñëw teewal fii euh, jigéenu mouvement si laa bokk bu daara jël am mbégte ak euh, gën ci am njàngat gën ci am xam-xam tey ndax euh, loo doon laam-laamee tey soo ñëwee fii boo dégloo président euh, Abdou mbay bu mu wax nga xam ne dëgg bi ñu doon wax ci moom kon tey gis nañ ko ndax déggoon nañ dëggu bi fulla bi fayda bi diggeloo man te tey gis nañ ko. man Sass Ba laa tudd nekk responsable politique commune Thiamène Pass. Euh, adhéré ci mouvement ci laa bokk ànd ak coalition Abdou 2024 waaw. waaw xam nga politique gu réew mi moom bu ci daara bokk du dox ndax seet nañ ne tey jii euh, nitu nasaraan yi daanaka ñoom ñoo ŋànk euh, politique bépp te itam li doxal àddina daara yi ci lañ bokk te defe nañ ne jànginu daara rek moom moo mën a jooyante àddina teg ko ci yoon. loo tax itam ñu soobu ci politique bi te itam gis ne Euh, mouvement ci la bokk euh, ndawi daara ñoo ci ne wax dëgg yàlla ànd ak itam euh, coalition Abdou 2024 te président Abdoul mbay ñëpp xam nañ ni ku mës a taxaw daara la ndax baayam sànq rek am na ku ma koy wax ne ma na nga xam ne baayam ko daan jàppale daara la kon nag loolu dana tax ñun ñu gën see sawar waaw ah, di wax na nag adhéré nañ te engagé wu nañ incha allahu te fee ñu nekk ca commune Thiamène Pass incha allah danañ fa taxawal mouvement bi lépp luñ ci war incha allah danañ ko def pour ñu am dam 2024 incha allah. discours bi moom dañ koy rafetlu lii lañ xam ci moom ndax keroog bi président Sall ñëwee bëgg a jot jël réew mi bi mu jëlee réew mi ba koo teg ci yoon euh, bi mu ñëwee surprise ko indee bi mu ñëwee am na sax ñoo xamante ne naan na euh, ki mu def premier ministre moo gën a moo gën jekk ci président bi sax am na ko doon wax ndax xam-xamam. te itam li ñu wax ne def na ko ci biir réew mi man tey sax xam ma ko woon tey laa koy doo xam ne moom moo ko fi indi loolu doon naa tax tey ji ñëpp jàppale ko. waaw ndax yàgg naa jëriñ réew mi ñun ñu ciy jëriñu te ko woon ndeke